Josette Kali. Nous sommes mardi le 11 mai 2021. Vous écoutez Sud FM Sen Radio. Il est 0 heure, l'heure du bulletin d'information. Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi numéro 2021-24 du 12 avril 2021 portant report des élections territoriales, le chef de l'État Macky Sall, à part décret numéro 2021-562 du 10 mai 2021 fixé la date du la date euh, au dimanche 23 janvier 2022. Ces locales seront tenues pour le renouvellement général du mandat des conseillers départementaux et municipaux. L'annonce est faite par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diom. Légère insuffisance du poulet sur le marché à quelques jours de la Korité sur un besoin de 10 millions de poulets, 9 millions ont pu être produits par les aviculteurs, un déficit de 10% qui a entraîné une faible hausse du prix du poulet. En visite à l'abattoir de la Sédimos lundi, le ministre de l'élevage et des productions animales, en compagnie du ministre des, du Commerce, est revenu sur les démarches actuellement en cours pour la relance du secteur avicole de Nizia Sambou. À quelques heures de la Korité, le besoin de 10 millions de poulets pas encore atteint, c'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'Élevage, Alessane Diop, en visite à la Sédima. Nous sommes à trois jours de la Korité. Ce que nous avons vu nous réconforte au regard du contexte qu'il y a. Les estimations qui nous sont fournies donnent en tout cas une évaluation de la millions de poulets En les croisant avec le volume de poulets a été

une certaine euh, hausse des prix sur le marché, ce qui indique qu'il y a un léger déficit de la disponibilité du poulet. Mais nous pensons que ce déficit sera très rapidement résorbé avec euh, euh, l'abattage des poulets dans les autres entreprises, mais aussi à travers en tout cas les acteurs et les autres

à partir duquel on va relancer cette filière. Un plan de relance très attendu par les acteurs. Anta Babacar directrice générale de la CEDIMA. Parce que nous avons vécu à cause de, la Covid des, périodes très difficiles, perdu des emplois. Beaucoup de producteurs ont arrêté la production de, de de chair et même d'œufs de table. cette filière avicole qui par le ministre de l'Élevage pour nous permettre de travailler davantage et de reprendre nos activités au quotidien. Une visite des ministres de l'élevage et du commerce pour constater de visu les efforts de la CEDIMA en matière de production avicole. Rufisque Denisia Sambou pour Sud remise de matériel roulant et informatique aux structures nationales euh, telles que euh, DEC, DAGE, euh, une réception de véhicules et de matériel informatique qui entre dans le cadre de la modernisation de l'état civil. L'objectif est d'avoir une entité biométrique unique pour la sécurisation des données, l'obtention rapide des pièces d'état civil, passeport et carte nationale d'identité. Ce projet est financé par l'Union européenne pour l'Afrique à hauteur de 18 milliards de francs CFA. Écoutons Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales, au micro de Aïssatou Gueye Ba. Le Sénégal au niveau territorial avec 552 communes qui sont toutes des centres principaux d'état civil. Et nous sommes dans une phase de modernisation, de digitalisation, de numérisation de cet état civil. Nous ne cessons jamais de le rappeler, notre objectif final, c'est d'avoir une identité biométrique unique. Cela va concourir dans la sécurisation de nos données d'état civil. Cela va concourir également dans la rapidité d'obtention des pièces d'état civil. Et in fine, cela va concourir également à la rapidité dans l'obtention des autres papiers nécessaires tels que les passeports, tels que les cartes nationales d'identité Mais tout cela géré à partir d'un dispositif commun. Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il en soit ainsi. Je pense au data center qui est à Diamniadio et qui va nous servir de de réceptacle pour abriter toutes nos données de manière sécurisée. Maintenant, les missions de terrain pourront se faire que si nous avons le minimum nécessaire. Eh bien, Excellence Madame l'ambassadeur, les clés que vous venez de me remettre pour le compte du gouvernement du Sénégal pour cet important projet, eh bien, ces voitures-là vont permettre aux différentes missions de partir tout de suite sur le terrain et de faire ce travail ô combien important et attendu par les populations. Josette Kali jaajëfal naa leen ci déglu bi ci lu ñeel nag disposition yu article premier bu loi 2021 24 bu 12 avril 2021 ñeel daqu élection territoriale yi njiitum réew mi Macky Sall ci ab décret nag ci altine gi ñu koy duppee numéro 2021 562 bu 10 mai 2021 moo appal nag élection locale yi ci dibéer ñaar fukki fan ak ñett ci weerub janvier atum 2021 gi di ñëw yile local nag dinañ ko amal ngir yeesalaat ci euh, Sénégal gi yëpp lépp luy mandaw conseiller départementaux yi ak municipaux yi euh, bile xibaar nag ki ko xamle moo di jëwriñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi ci ab communiqué di Antoine Félix Abdoulaye Diome ñàkkub ginaar la ñu nemmeeku nag ci marché bi donte ay fan dong moo ñu yegg ci fetub korité gi nag donte li ñu soxla woon mu ngi motoon ci fukki million ci ay ginaar fi mu ne nii nag lu toll si juróom-ñeent ci ay million ci ginaar dong la aviki aviculteurs yi jot a defa jot a am mu di ab ñàkk goo xamante ni téeméer goo jël fukk yàlla mu tax ba li nga xamante ni moo di njëgub ginaar gi dafa yokk ci marché bi tey jii nag jëwriñ gi ñu dénk wàllum élevage ak production animale nekkoon ca Sédima ànd ak naataangoom bi ñu dénk wàllum commerce moom nag moo xam le ni eh, yëkkati na ay démarches yoo xamante ni day tax ba ñu mën a relancer waat maanaam eh, jekkalaat secteur avicole bi bu baax a baax Denisia Sambou. gannaaw ba mu desee ay waxtu ngir korité fukki million wu ginaar yi nga xam ne moom la suñu réew soxla dabaguñu ko bu ñu sukkandiku ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu càmm gi amal doxub nemmeeku ci Sédima. nee nañ ma nag ne ci weeru koor gi moom li ñuy soxla ci ay ginaar dina war a toll ci fukki million. nee nañ ma tamit li nga xam ne ñiy jaay ay cuuj di ko jaay ñi nga xam ne ñooy yar di jaayaat ñooñu yar di jaayaat jënd nañ daanaka lu toll ci juróom-ñeenti million. donc mu mel ne fukk yu ñuy xaar juróom-ñeenti war nañ ko matale. loolu nag ah dara la. waaye xam nga njaayeen yi moom. seen bëgg-bëgg pour nga mën koo matale dafay doy waar lool. Euh, ñu xamee ko noonu. soxla ci wàllu ginaar bu am solo waral ñu nemmeeku yokkute wu njëgu ginaar ci marché bi bu ñu sukkandiku ci Aminata Assome Diatta jëwriñ bi ñu dénk wàllu commerce. ministère na ci fan yële ñu jógee am na tuuti hausse prix yi euh, euh, poulet bi day wane di rek am na tuuti lu wàññeeku si approvisionnement bi donc bu ñu gisee. Euh, ak li fi nekk ci SDMA ñu am yaakaar ni ci yeneen entreprise yi yëpp dinañ ko am production yu acceptable am nañu yaakaar ni déficit bi euh, du ko tax tar noonu te incha allah mën nañu am. filière avicole nekk nag secteur boo xam ne jànkonteel na ay jafe-jafe yu métti ci jamonoy Covid bi jëwriñ bi ñu dénk wàllu élevage di xam leen nag dinañu amal li ñu dippee plan de relance ngir sukkaliwaat filière bi. Euh, di am yaakaar ne bu ñu jógee ci lii. maanaam semaine yi nga xam ne dañ ciy dugg ah da dellu ca la nekkoon yokk production yi ndax demande bi mën a ñu mën koo matale comme ni meloon. plan de relance boo xam ne nag askan yi yëngutu ci wàllum yarum ginaar soxla nañu ko bu baax a baax Anta Babacar Ngom directrice su Sedima. plan de relance boobu xëy na dinañu doolelaat ndaxte Covid bi fi jaar. sonal na l'ensemble des acteurs de la filière avicole ñëpp mujjee jaaxle emploi yi jaxasoo liggéey bi mujjee metti plan de relance bi xëy na dinañu permettre ñu delluwaat suñuy activité mun a produire at ginaar ndaxte sénégalais yi nag wax dëgg fa yàlla soxla nañ ko xub nemmeeku jëwriñ yi ñu dénk wàllu càmm gi ak commerce ngir nag saytu liggéey bi niñ koy amalee foofee ca Sédima di yëngatu ci wàllu production avicole. ñu tey ji nag matériel bu takku jëm ci ay informatique jëm ci informatique yenn ci ay structure nationale yu nekkee ci réew mi lu si mel ni DEC wala DAGE bile les réception nag yokk nañ ci lu toll si juróom-ñett ci ay auto boobee matériel informatique nag day ñëw nag ngir ñu yeesalaat lépp lu jëm ci wàllu wàllum état civil ndax mbébét bi moo di ñu am benn mbir boo xamante ni moom lañ koy ràññeewee ngir mu jëm nag ci wàllum aar lépp luy ay données waaye yombal jot ci pièce d'état civil yooyee lu si mel ni ay passeport yi tamit wala carte nationale d'identité bi projet ñi ko dooleel moo di Union européenne ci wàllum Afrique ñu xayma ko nag ci lu toll ci fukk ak juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar ñu teewlu Omar Gueye di jëwriñ gi ñu dénk wàllu wàllum collectivité territoriale euh, ci micro Aïssatou Gueye Ba. jot matériel bi nga xam ni moom la Union européenne jagleel programme bi am solo nga xam ni ñi ngi ko jagleel mbirum état civil ci wàllu numérisation digitalisation sécurisation maanaam xarañ yu bees yi ñu jëfandikoo ko ba mën a fexe suñu askan fépp fu ñu nekk ci biir Sénégal wala même ci bitim réew ñu mën a jot li nga xamante ni moom la ñu soxla ci këyit moo xam këyitu juddu la moo xam extrait de naissance la moo xam yeneen pièces yoo xam ni soxla nañ ko ñëpp a ngi koy xaar pour que ñu mën a sécuriser suñu état civil pour que ñu mën a centraliser suñu données yëpp nga xam ni bu amee yàqu-yàqu bu am feneen tere daañu am foo xam ni fa lañ ko denc utiliser technologie yu bees yi yu mel ni data center bi nekk Diamniadio loolu nag lépp nag doon njëriñ pour askanu Sénégal yi jumtukaay yi waroon yépp pour que ñu liggéey fi mu ne nii mi ngi yemb oto yi yemb na pour que mission yi war a dem ci biir Sénégal ànd ak euh, direction état civil euh, directeur euh, état civil bi nekk fii coordonné ak ñi nga xam ni ñoom la Union européenne jël pour ñu ànd ak ñun ci liggéey bi muy Civipol ak Enabel su ko defee ñu mën a def liggéey bi ci quatorze région Sénégal yëpp matériel informatique bi tamit jot nañ ci loolu nag am na loo xam ni ci ministère bi lay lay nekk mais am na bu jëm ci yeneen ministères yi nga xam ni ñooy ànd ak ñun di lëkkaloo ak ñun ci liggéey boobu. Josette Kali. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar ci yëmamaay jaajëfal naa leen ci déglu bi jaajëfal it Pape Lay mi nekkoon ci xarala gi léegi léegi oustaz Alioune Mbaye dina ma wuutu ci micro bi ngir seen émission gunge koor wéy leen di safoo programme Sud FM seen rajo.